maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam maa ngi nuyu ku ci turam ak santam ma bëggoon rek ñu waxtaan tuuti rek tuuti rek ñu dégloo ñu tuuti rek parce que li ñu li ñu li ñu li ñu fi indi dafa dafa sérieux te folklore bi baax na trop parce que ci suñu tradition la mais dañu war a suñ nee ñun dañu war a ñëw indi lu bees il faut que ñu am doxalin bu bees ak taxawin bu bees donc ci loolu laa laa leen di ñaan ak lu mënti xew rek suñu xewleetee ñuy dégloon de mu am tuuti organisation tey nag damaa kontaan parce que ci ñaari axe laa bëgg ñu waxtaan ci benn bi mooy su nuyoo ñi nga xamante ni ñoo ma accompagné ba pare mooy sama présidente Binta Diagne Ciss di présidente mouvement bi tey ji wàcce sa kanam ma koy gunge ko nii ak ñeneen ñi parce que su ma ko tuddee rek yóbbaale nañu ci des ñëpp ma ñëwaat ci tur beneen coalition muy coalition Pape Doumbia ak Thiès sa kanam boobu tey xaar seen nekkal leen fi ak sunu sœur euh, Abi ak ñom Baara ñu yor communication bi ainsi de suite ñom Dieng Kalorol ñom ñep ñew nak ci sama grand Thié Thié dootuma ko présenter mais tay daf ma gën ñaax wax naa ko léegi ci conférence de presse bi moy ni tay li mu def ni man de xalaatuma ko won très honnêtement parce que réunion yi ñu mujjee def yëpp sunu stratégie lii bokk ci woon donc moom suñu apporté les lii il dafa am beneen plus bu mu ñu indil ci suñu communication ci ci suñu stratégie donc du ma ko remercier mais dama koy ñaanal parce que dafa beaucoup ci nombreuses activités yu nous apporteel donc man maa ngi lay féliciter grand di la remercier ci taxawaay bi beneen bi nak moy comme que dañoo wara jog ngir outil dañoo war a ak dëkk bi parce que c' est bien beau ñu ne diw daal tamit mais c' est bien beau aussi ñu ne nit kii lan la mën a apporter fi ñu dëkk damay leeral ne man kenn importé wu ma fii laa dëkk ba pare te li ma gën a neex ci mbir mi man man fi ma dëkk ñoo ma porté mooy waa Jaxaaw tàcc loolu ma dëkk ñi ko créé jaxaaw lañ dëkk ñi indi initiative bii jaxaaw lañ dëkk ñi ne tey ñoo may porté ci mairie bi indil ma 14000 voix jaxaaw lañ dëkk dama ni ñi war a laamiñ di wax di attaqué dëkkuñu jaxaaw ñun dañuy ndaw dëkk jaxaw kànda yaroo fa màggee fa doon ronde ci robinet bi nekk ci poste courant di ko rontal suñuy waajur loolu comme dem ci ñun tey donc amuñu complexe di ko wax mais dañoo am complexe waxtaan ci débat d'idée ne lii ñu indi tey daf ñuy réconforter daf ñuy dooleel mu jóge ci sunu waa kër jóge ci sunu njaboot jóge ci sunu askan donc ñun kontaan nañ ci jaxaw kontaan nañ tey ci taxawaay bi ne seen doom moo ñëw di leen laaj seen baat beneen bi may wax mooy ku mu nekk am nga droit laaj dëkk bi waaye nag ku ci nekk war nañ la mën a laaj yow lan nga defal dëkk bi parce que li ñu wax su dëkk jotee dañ doon doon waxtaane mooy ku mu neex li nga yor nga defal ko sa compte yow sa jabar sa doom ngay dagg say biir di dem Dubaay ak Angleterre rek loolu di seetaan ay football ñëw toog di xool xale yi

wax kenn ne li ñuy wut ndax am nañ ci droit déedéet dañ ne li ñuy wut dañ ci am droit parce que parce que bi def preuve jotee dañoo teg suñuy preuve te kenn ci ñoom du taxaw ne li ñu def lu ñàkk fayda la lu am fula ak fayda yaakaar nag yéen yaakaar ñun ñu fi toog yaakaar ñi ñu àndal yaakaar waa zone nord ni ëllëg dinañ porter suñu candidature ngir li ñu aspiration bi ñu am. c' est bon loolu laa wax maa leen remercier ba beneen